C'est vrai que quand on est ministre bien responsable quelque part, on reçoit n'importe quel type de personne. On reçoit n'importe quel groupe de personnes. Des fois, on recevoir ay nit bo rona dund téméré at dana ci wañi parce que nakar nga cey jëlé wala da ngay souffrir le temps de l'audience. Mais a beaucoup de quelles que soient les difficultés. So leen di ñew ku qui dina lire ci seen kanam ne a ngeen di andi ak rafet njort te defe naa ne loolu loolu am solo la li ngeen def yombul vous devez donné une leçon à l'ensemble des Sénégalais vous êtes des privés chacun pourrait faire lu mu bëgg a def te du wéeru ci kenn mais loolu lépp da ngeen ko teg fële dajaloo nekk benn bu Pape Abdou di tëgg ñoom Assane ak ñoom Fallou ñii ngay gis ñuy jaay billet di dugg ak génn président bi bu keneen di tëgg moom ouvrier lay nekk waaw mais Sénégal ngeen foog ne bu ñëpp doon def noonu coow dina am ci réew mi coow du fi am nit ku nek di nga wutal sa bop te di nga bok ak nit ñi rew mi parce que li tax ngeen and pour ciow du am rew mi la mais ku ci ne li ngay am yang ko koy sa poche mais cette solidarité dans la concurrence aussi ça c'est une leçon à donner à l'ensemble des des des des sénégalais parce que nit yalla bu len bolé te ngeen mënon na juddu ba genn aduna te du ngeen xamanté mënon ngeen fi nek ba dem du ngeen nek ay promoteur amna ño xamanteni li lañu nek ñi nek leneen mais yalla leen segg ci nit ñi boole leen ci ben natu boole leen ci ngeen bëgg ben affaire li tax man natu moy li ngeen di def du forcément la leen di andi xaliss mais amour bi ngeen ci am natu la lolo loolu war tax nga xam ne mbokk ngeen war nek par force mais pour moi am il faut ngeen am njit mu koy impulser pap Abdou tout le monde sait que c'est un ami c'est un frère yalla ko dogal du mako ñëk xam waaye leer na ma ne mun naa ko woo heure bu ma neex te moom itam war na heure bu ko neex daf may woo d'ailleurs sax des fois mu romb ñu ne Matar Ba romb foofu je sais moo tax ma wàññeeku tuuti pour que ñu mun ñoo ràññee mag ngi yow <laughs> parce que des fois dañu jàpp ne man la xaw ma trait de ressemblance lan la nag mais des fois ma romb fenn ñu ne Pape Abdou Fall man leen dem leen wëri ko du moom mais kii ministre des donc. da ngeen nit ñoo di le développement des sports plus particulièrement de la lutte qui est notre fierté parce que c'est notre discipline ngeen nekk ci di ci sans yéen il peut pas y avoir de combat vous êtes au début et à la fin du développement de la lutte heureusement vous l'avez compris comprendre ngeen ko bu baax a ba ba bu Ken daw fi ku nek dunduna na fi lo xamantene ne boo nga bëgg yëf yi am jom nga bayyi tok defi lenen man lolu xamna ci dara parce que nak euh, ci dëkk bi la dëkk te jaxaso nak yeen des fois nit di dem damay tok fi am yërmande ci mom parce que damay xamne limuy defi nii yëpp coono rek lay nek waye mu ngi bëgg bëggal ay milliers de sénégalais yo xamantene bu amul ñu am nakar motax bu fekkee ne ku bégal nit ñi dem ajana yéen a jiitu àjjana parce que coono bi bari na perte te bàyyiwu leen yéen a ngi ci. kon maa ngi leen di sant di sant Pape Abdou di la encourager je sais que c'est pas facile d'être dirigeant surtout ni ngeen bindoo mais fexe nga ba tey xeeboo kenn ci ñi toog fii parce que koo fi xeeb mu demal boppam réew mi moom bul sonn kuy am ak ku am dépense ak ku amul dépense yem koo fi xeeb mu balaak say bagage dem yoonam. mais boo yemalee ñëpp ku nekk nga jox ko sa cër ñëpp nekk say Baay Faal di la défendre di ànd ak yow di def je pense que ça c'est ce que tu as fait et ça bu doon dañuy décerner diplôme manager dañ lay jox diplôme manager c'est pas facile ce que vous avez fait